Well, Mangenanu. Um, good afternoon and thank you for joining me. Um, welcome back. It's an emergency call, as you all know. I don't usually come out Fridays. It's the first time for the last whatever years. It definitely um, worth it because you already know what had happened back home. Um, people lost lives and of course homes and all of that due to a bad wind, which I can call Elsa, the same wind that passes through the coast here um, through the islands and via somewhere Florida towards Atlanta and, and then to Cuba. It made a destruction. So um, it is very sad, um, according to uh, what I heard and reports stated that some people definitely lost their life and homes and all that. Um, government is in a trouble. let's say look out now how to um, help families. it would be difficult to help them simultaneously, but again, um, I think they would outline something that will definitely gonna um, make a way, let's say, way to at least to make an easy recovery, and nobody should lead, this, lead this um, recovery, let's say, unit. Nobody but the the the the, the, the president, I guess, because um, whatever happened nit yi dañuy wax Barrow Barrow seen this is in, unfortunately definitely fall on his side uh, I'm not saying that he's the cause though lii emergency la ñëpp xam nañ nu fa demee doo wan nag um, ñu déggee ko noonu si Gambia uh, mu ne ma King Jobis ma ne ko naam mu ne ma kër yu bari yàqu nañ fii definitely garab yi daanu nañ um, nekk yu bari nga xamante ni am nañ conditions yoo xamante ni dëgërut mu ne xeddeeku na ko ngelaw li flip na ko wàcc na dem na mu ne ma loolu am na ci guddi googu leen ah, mu ne ma am na ñu ci jot a ñàkk seen bakken ah, fii surtout si ñoomi bi foofu mu ne def na fa yàqute bu rëy ah, ñi ngay jaale famille boobu lool te ba pare defe na lii ñi ngay defe na lii ñi ngay wane suñu remorse comme ñi ngi wane suñ yërmande lool mu tukkee ci loolu leen ñi xam ne ñun tamit waroon nañ si mun a bokk yàlla def na bokkuñ si waaye ba tey it man kàddu noonu comme ni ma ko dee waxee rek ku nekk rek am nga sa bés. so yàlla def na ne tey loolu mooy seen bés man noonu laa dee gisee àdduna ku nekk am nga sa bés bu neex ku nekk am nga sa bu naxari bés bu neex nag bu ñëwee xalaatal bu naxari bi moo faa tegu bu gënaa tamit yéen ñu ma faaloo pour ngeen understand loolu bés bu neex bu amee xalaat leen ne bés bu naxari moo faa tegu tamit bu gënaa pour ngeen understand ko kon doog yàlla def na toom tamit condition bi lañ leen fekkee ngelaw li jaar na fa yàq fa lu bari jaaya dana ko daan di def du ko munti di def mooy ne dëkk boo gis rek ñaareel mu dugg si ndox comme Gambia nu mel ni ñaareel fa ngi ngelaw yooyu noonu du fa daan di ñàkk waaye man nag ci suma fàttaleku dina daan am waaye nag pour nit ci dee ci comme nii mos du am nag lu mos du am man lu ma mos du yëg laa wax suma dunda xëy na tamit mboog mag ñi fekkee woon nañ nag lu bari loo xamante ne man fekkewuma ko woon kon doog loolu yooyu mun na am um, anyway um, loolu mooy loo xamante ne let me see what's going on here dafa mel ni something is not right hold on a second because um, dafa mel ni something is not right here I don't know why but um, guys su fekkee ne something is right you tell me are you guys getting me su fekkee yi a maa dégg bu baax you let me know please ko dafa mel ni dama gis fi benn icon boo xamante ne xaw fa demee waaye su fekkee ne yéen a maay dégg then let me know before I proceed or something it doesn't look like something is right here cause gisuma nothing loo xamante ne wan na ma ne something is going on um, I'm not sure what's going on here um, Um, let me see here again. Well, I don't know. Um, um, something is not right here though. Um, I don't know, man. I, I don't know if you guys are. I did, couldn't see your comments. I couldn't see anything. Mama And this is not usual. Um, I don't know why it does this though. Um, let me see here. Um, one more time here. Let's just see here. Um, mm. um, well, I don't know. Um, I can definitely see myself. I'm talking, but I'm not sure if you guys are hearing me. I'm not sure what's going on here, but all I know for sure I don't know hold on ma bind lii are you hearing me maybe you guys can get this text let me see mm. yeah definitely yeah definitely dafa mel ni I'll send a text okay good okay good then now we good now we good now we good I'm sorry I couldn't see nothing gisuma woon dara so mu jaaxal ma torop yeah kon donc we good we good I could see the text now I could see the text because this was it wasn't at all so lu am la ci réew mi Adama baro am sorry ci li nga xamante ne jot naay xew ci réew mi ma yëgal ko suma boppa fii gisal ko suma boppa mu metti ma torop ma am si trop yërmande gis ci suma boppa wante problème bi ci sa nguur nguur am mooy ne suy neex dangeen di fàtte ëllëg problème boobu ngeen am mosoo naay neex waaye da ngeen fàtte woon tey ndax man jamono bu may wax ak yow tey laay gën a gis ci démba ma xam ñooy ñu nga xamante ne ñoo séq ak yow liggéey gi moo loon may wax lool di la hint because yaa ngi jëflante ñoo xamante ni xamula leen politically Adama man maa la ginaa am expérience politique yi réew mi man Jobis ndik ñooñu ñu ci gën a bari mbokkante nañ ak man one way or the problème bi laa dee am ak yow waaye du problème yow nga nekk président bu la neexee nga nekk fa hundred years man suma yoon nekkut fa waaye li tax ñi tànn président di ko dooleel si laa bokka ndax président dañ koy tànna you're not going by one person this is a collective responsibility you got lot of people waiting the majority carry the votes in the next month next coming month you guys going back to the polls to find out whether or not you should proceed or not we got somebody else out there or people out there who have submitted their application looking for the same leadership kondo borrow léegi-léegi gàtt got to understand ne power bi bul dee foog rek bu jékki ba yàgg rek nga dóor sa dina bu ko dee nangooti xalaatal ñi nga xamante ni ñoo cause di power foofu la yàlla nekk moo waral ngelaw li nga gis mu am doole lool ñëw fagagal doomi aadama yi ñaan munu ci dara bu waree am xankañ lu waree am dafa am pour am wante tey emergency unit si nga xamante ne ñoo war a mun a jokk jàppale nit yi nu mu gën a gaawee amut ci sanguur amut ci Red Cross ndax sanguur bu fa amoon dafa nekk alal bu bari dafa nekk xëj na ñu ne waaw service men yi les say ñu ne di fire service di ambulances are available doctors are available and stuff like that rescue unit baa ngi fi taxaw pour loolu waaye loolu yëpp it's not even there bi ma leen xamee ba léegi at bi moom moo ci raw yéen a ngi engage ci politics affaire yi développement nag affaire yi moom mooy loolu déggatuma ay waxam ñu ngi rax ay ministre ak lu nekk ñëpp a campagne which is very illegal xamuloo stakeholders yi xamuloo civil servants si xamuloo nobody xanaa di ami moo tax ma congratulate leen ñoom toog ne ñoom ñu ne institution bii war du nekk di endorse no politician ñoom lañ nekk ñu ngi sax maa ngi gis recently Dramé ngi dem too ak ñoom very nice and I like that Barrow amee réew yombut ku la ne yomb na mu ngi lay na it's not about toog ci moto bi taalal sa loxo nii no it's not about that lii tamit bëgg naa pour nga understand nekku ne danga war a toog ci oto bi rek nga tàllal sa loxo ñu ne baro ñu ne baro ñu ne baro um, guys what is going on here man tey am naa ne tey daal suma ok good it's not about that it's not about toog sa loxo rek tàllal ñu ne baro baro baro no it's bigger than that dafa am interest bi nga xamante ne moom la dëkk bi am si yow boo xamante ne dafa umba di parties and their supporters gisatuloo nobody it's not the NPP Barrow NPP Barrow it's just like dafa nekk a political party boo xamante ne ñu ko support bugg nañ yow nga continuer dëkk gi waaye yow li nga war a defal dëkk gi dafa soppa ñoom seen xalaat ci wàlli ñoom rek ñoo nekk ci dëkk bi jamono bu ma génnee di wax si yow ñooy génn naan ma everything is ok xoolal xale bi tey mu bind mu ne ma ne 99 percent ci dëkk bi yëpp am nañ ndox ak koreen te loolu xam naa ne is not true li tax mu wax ko mais bi mu ngi look for a relevance mu ngi look someone to just say thank you someone to be happy with him na nga bëgg a first lady kontaan oo oh, baro kontaan dat ne gis nañ bu jobis mu ngi binda yanko ñoom dee know me when it comes to them su leen nit waree jóg fi attaque loo xamante ne du noonu ma jóg that is my job waaye li nga xamante ne moo am right now ñun ñoom ñu bokk ko gis ko ci réew mi dañ am pour ñu waxtaanee ko ndóog loo tamit bëgg naa pour ngeen understand ko nawek du tey institution yi ci am ci dëkk bi ñoo ginnaa na sax recently ñu ngi detect ay corruption missing millions ci loo xa waroon a xam ne we could have fixed this long time couple millions of dollars dugg na nawek ba léegi Gambia dem na koo laaj mu ne la ah Corée day ñëw na léegi mu dem ma ne leen jël leen buum takka ci seen baati ndóog Corée ñëw na léegi mu dem ne ah demangut de yow fi nga toog sa privacy sa freedom is not you see léegi-léegi definitely neexu du waaye nguur dina dee traumatize ay doomi réewam da ngay toog nga xalaat ne sa fridge bi mu ngi sedda nga def yëkka-yëkka courant bi dem nga def fa bagage boo xamante ne refreshable goods yi la ni mu yàqu far ndik you don't have the power mu jékki di xeeñ last year amoon na ba benn jigéen dafa ma ne King Joobis ak famille dama muuf ndax suma kër a ngi xeeñ ndax dafa mel ni everything dafa back up ndax there is no power there is no water something like this is happening disaster bi cause problème yi nawet am na lum cause daaneel ni ipool which is normal waaye seen programme last couple months maa gis ay struggle la ñoo xamante were here with me including Mody Njie ñi ngi bindaa di xam nga di complain about di negligence bi am nawek ak lack of proper care bi am ci seen uh, institution bi courant bi normalut ndox bi normalut loolu noonu until when kenn ñëw di ma bindal lii mu ngi fi di am depuis 1970 something suñ demee ba choose use change government expect nañ ah, adama millions su bari dugg na xam nga lu tax comme li ma la koy last time arab yaa fa des EU World Bank joxe neen alal bu bari waaye time boobu man gisuma woon alal bi fan la mu doon dugga lu dul ci ay loxo doomi aadama ngi def lu leen neex di pasar pasar xaalis boobu mënoon naay cause even Serekunda Baye Serekunda Digital Frank mu am is on NAWEC like generator just like power plant bi nga def foofu boori biir kaama things would have been cop easily why you guys don't do that moo tax ma ne ba ngeen di bi mbax mbax mi ngeen di paari ak ñoom xalaatoon lañ woon ne fa sangi disaster yi is on the way kenn ñaanut ko kenn bëggut ko sa réew waaye tey man ak yow ak doomi réew yu baax yépp ànd nañ jaaxle adama nee naa la ne ñaareel dinaay bugg ndam dinaa la jox crédit boobu da ngeen dee bugg ndam waaye te dil déglu kii dugal baati ndam ci sa noppa kii dugal baati ndam ci sa noppa dafa ute koo xamante ne mu ngi laa jey Yaya Jammeh xàmmee na ñaar yi wante yow xàmmeewuloo ñi le kii lay jey mooy ñëw ku laa ne ne everything is okay mboroodi yaay lii nonsense that is not true kooku lu mu bëgg rek mooy lu ko arrangé yaa ngi amee nit yoo xamante ni man ay daaw ne sax if they are Gambian including Alkali Konte Sidi ak ñooñu lee façon boobu te nga war leen di jël di leen di jiital ci sa nguur but definitely it's very sad Adama ñooñu Adama gis nga kaama explain na la leena du ñépp ñoo mun a séddale yow mun nga ekkati sa jox leen na leen dem leen ngeen saaf dëkk gi dem leen ngeen dimbale koñ gi gile dem leen ngeen yóbbu file def ko ci moto def ko ci enveloppe bi foo xam waaye gis nga niñ ko joxee noonu ñoom duñ ko joxee noonu ñoom buñ demee suñ waree joxe hundred dañuy joxe thirty five ñëw na la Mr President we have concluded everything gars yi gërëm nañ la indil la vidéo yi tegal la Gambien bi nii lam iñaanee séddale ñépp mënuñ ko pour ma wax la ko di ñépp ñoo mun a seddale lii toujours dinaa la ko dee wax trial nga am nga am tax force boo xamante ne even su fekkee ne you need the army sa they could help you to do this xam ne I believe ne the rise from Pakistan is still there xaj na it will help fekkee mu fa as um, until date géeguma def no distribution yet that could help ay nen tamit uh, stakeholders um, party holder war nañu créer mi ñu dimbalee ko askan bi nga xamante ni ñàkk nañ kër ak lekka waaye ñu jaarale ko ci loxo yu set ak nit yu am yërmande billaahi am na nit yoo xamante ne boo tegee xaalis jox leen mu ngi mel ni yaa nge aye askan bi dunda ndax mu mënuñoo séddale xamuñ ko judduwuñ ko yaroowuñ leen ko màggewuñ ko safuñ ko sax si ñoom maanaam duwuñ fasu ngi nit boobu leen nga ekkati alali mbooloo moo leen gën lu nekk pour ñu dundee ko man fii ci diaspora bi I cut many and I of course confronted many about that nit yi ñooy seen xaalis jox leen ñu jël xaalis bi dugal ci seen poche man Jobis am na benn gambien bu mu soon a dee si Bronx bi fi ma doon di liggéeyee ma jël mbuus go round na leen gars yi dafa am mbokk bu dee keroog benn sénégalais sax na ne ma ne jóob ma ne ko naam mu ne ma nit bu dee ñu koy laajal kiy laaj ak ku ñuy laajal mooy tax ñuy joxe waaye ku ñuy laajal xaw ma ko yàlla na ko yàlla xare aljana waaye yow mii laaj dina tax man ma joxe lu ma ci tegal mu ne ma yow ku óor nga suma diggante ak yàlla xaalis boobu biñ ko dajalee ba pare ma dem dugal suma loxo si xaalis bi ba suma loxo bi dem xaaf ma génnewaat ko bi ma génnee suma loxo ma ne ah jóobis gannaaw dajale nañ ko lu tax nga koy konte xaalis si néew bu dee nga koy konte loolu du yow bul ko sax compte ndax kont ko óorut wallaahi noonu laa ombee xaalis ba fi nga xamante ne moom la xaalis bi bokka ma yóbbul leen seen xaalis ñi nga xamante ne ñoo deele noonu laa leen yóbbalee seen xaalis teg ko ci seen loxo waaye te man fii gis naa gambien yi ñu teg xaalis ba pare ñi teg ci seen loxo loolu dara gënat koy ñaaw si àdduna te yu mel noonu yéen ñu ma seetaan na ngeen xam ne mu ngi am soo leen gisee ma duggoon London attaque gaay mooy Yunusa ak groupam bi man xam naa gambien bi lan lam capable lu ko mel gis naa ko si GDF Adama ñu ragal yàlla ñu ñemeñ yàlla lañ amuñ benn ragal si yàlla te amuñ benn yërmande ñi nga foog ne am nañ yërmande pour loo nga understand loolu leen amuñ yërmande te ñooñu nga óolu tey jox leen na leen dem leen ngeen séddale Adama du ñëpp ñoo mun a séddale tey maalo boobu yëpp leen ko joxoon ak xaalis sax na leen dem leen ngeen jox victime si man joobi suñ ma koolee dañ ma dee wax ne gisuñ dara mbaate biñ gisee xëñ na benn something lañ laa wax loo xamante ne doo foog ne sax am na lii am na si Gambien ñu ñàkk a yërmande ñu mun a pretend ne gëm nañ yàlla te gëmuñ yàlla moo tax sama dama foog ne safaan yi dañuy daal mu tukkee ci yàlla tukkee fu munti di nekk ngir jëf bu bon boo xamante ne yaa ngi koy mbubboo te nekkut si yow foog ñu change ko yi pour ñu mun a ànda ñu ni neen liggéey dëkk gi dëkk bi lum ñàkk mooy nit ku óor nit ku óor mooy doomi réew bu baax moom la dikka bi ñàkka doomi réew bu baax mooy nga gis sa moroomi réew éne ko jaama ndoom te da ngeen di fight lii nga xamante ne moom la réew mi joxe wàllam nanga ko ko jox te génn si waaye da yow sa famille rek tey sa ministre si maa ngi leen a laaj ndax ñoom ñàkk neen koreen ak ndox ñi ngi am boo xool sa ministre yi tey school si nga xam ne ay public school leen kama bu bon kama bu xeeñ fu doomi jàmbur yi nekk di dëggaat seen tànk ya ñoom xamuñ si dara ndik seen doom yëpp ñu ngi leen yóbbu private school including yourself yow Adama Barrow kon naka ngaa xamee problème bu nekk ci public school bi te loolu àggee nañ ma ko ñu ne ma King Jobe bi da dee dem public school nga foog ne du dara ngelaw rek ngay gis Adama lii yépp danga ko war a bàyyi xel ñoom duñ ko fiil who he, who he feels it knows it. They didn't know about it. Some of them are working with you for over how many years since you've been in power. Some have been working with Jammeh for the last 20 something years. ñoom fooguñ ne àdduna am na coono moo tax nekk ñàkkaar changes bii mooy waral kon changes du musa am si biir réew mi boo foogee ne am nga séddalekat amuloo ko boo foogee ne ñu la jegeeñ bari neen yërmande déedéet xamuñ naka la ñoo séddale ndik amuñ yermande te man xamal naa ko suma boppa ñu ci bari si ñoom tase naa ak ñoom jàppoo naa ak ñoom adama man naa si yow ak sa jabar nañ understand lenn ne ndamal réew mi moo ma gënal lu nekk tey ma gis réew mi si jaama mi si jaama moo ma gënal lu nekk waaye lu ma jàng sa daa moo tax tey may tëree nii pour nga dégg ko lu may tëri nii saxuñ ma ko rek MC dañ ma ko sabbe pare na ma ne ko mokkal meaning they hire me and ask me to cram it, to memorize it. I am very much into this, of course, and I know them very well. And they know Jobis very well. So when they see me, ñu daw xam nañ ni dañ tilim suma maam dana ma daan wax ne ma nit ku tilim du la bugga nit ku tilim du la bugga naa feqa du la bugga loolu lu am la Adama man maa ngi si jàmm ak salaam pour ma àggali la loolu leen pour nga understand maa ngi si jàmm ak salaam ne naa la ne naa duma du bugga lu wér ndik naa feqa buggut ku ko uñi ndax man munumaa jëkka koo xamante ne naa feq la muy suul askan di def lu leen neex foog ne dineen si génna dinaa leen indi fii weer leen te duñ si mun dara su fekkee ne Gambien yi involve neen lépp loo xamante ne Gambien involve na si nga foog ne mun nga leen a mun a plate def lu la neex foog think about it before you start ndik xam naa ne yéen ñu gën a bari njuuma ngeen entity si ngeen am nii di collecte xaalis yépp yëfi njuuma la ndik xam naa ne saay-saay ngeen man Jobe Ismail wax loolu leen saay-saay ngeen ankañ ah, danaa ko samoon leen muy nuroo xutba boo leen jëlee yéen a xam boo leen jëlut yéen a xam King Joe bis taggal sa bopp médium bi nga toog mos la fee laaj xaalis goo mu ne sax mos ngaay leb ci àdduna yorul la kenn butut te pépp place biñ dajalee danaa ko daan dajale ba nit ci kontaan waaw ma joxe ko bañ kontaan joxe kat dégg da ngaa jël information ne kiñ joxe waaye lii jafe na ci sa nguur yow aadama Baro ku mel ni alkaali Konte amut yërmande alkaali amut yërmande du cher ne ma duy raay boppi jërim ngeen baalal ma fii dafa xalaat tànga man nag dama ñemeñ tàngaay man tàngaay dama ko lay du dee raay boppi jërim ñu ne tey moo toog di la advice tey lu ma gën a métti bu ndimbal amee yépp dañ koy politisaay man seen politiquement ci bokkut ba di si bokkante moo tax jamono bu ma génnee pos xale yi ñëw bugg a indi mbexi politique ma tegee leen boor na leen hey fii ñun we have we are concerned Gambians we just have suñ opinion boppa ñun we want to share so if you guys want Barrow to continue go ahead with it su fekkee da am support daaba demal ak moom yéen a xam ak Halifa waaye bu leen ñi nekk fii du sonal ñu si gën a bari noonu laa leen di adressé. ndik ñoom su ma ñëwee bindalee na ma ne leen si sax entité public enterprise si wax ñuy foog ne I mean I'm directly di attaque Adama Barrow te I mean Adama Barrow can do this alone njuumte bi Adama def mooy dafa bëgg nit ko xamante ni dañ ko pent déti kuñ pent dëtti loolu man understand naa ne bëgg na loolu leen te kooku mënul laa jox ndam anyway loolu moo waral nag ñàkk système change bi ñu am si biir dëkk bi moo waral politique bu bon bu nekk si biir dëkk bi xoolal docteur boobu li mu wax ci Sidi Ndiaye Sidi amul raay di dem ay manduwaar di jéem a a fu dem na dafa jéem a atte i xeex di jéem a solve i problème Sidi himself is a problem problem cannot solve a problem amul benn place boo xamante ne is chaotic in that country ngay yónni ku mel ni Sidi Ndiaye mu dem di mediate he can be a good mediator di gaay ñun xam nañ lu mu def soo ko xamul ñun xam nañ ko ginnaaw xam nga ko yow mu jaral la politique ñun xam nañ ko in the interest of di dëkk bi dëkk bi moom si boppam xooloon na dëkk bi ungovernable te yow ci sa bopp sax de lim bëggoon moom su amoon yow Adama doo mus di nekk président si dëkk bi tey kooku noonu xam nga ne kooku xaajale rek moo ko neex lépp liñ ma wax si moom man mun naa koo dëggal ndax siidi ku sew la te Sidi sawar du woof noo Gambian Sidi njaay after all mooy kan Sidi lan la jëriñ dëkk bi bu dul làmmiñam bu tuuti boobu noonu mu maay saf làmmiñ boobu ñu musoon maay wax bu tuuti boobu noonu pucc pucc pucc pucc pucc xam ngeen li ma miin poco poco poco poco poco poco rek nga fay dégg poco poco poco poco poco labbo moom xam na loolu noonu la mel one second gars ma ñëw foofu loolu maa ngi jéggalu yaa ngi dégg moom fasu ngi nit boobu leen moom la mooy Sidi Ndiaye boobu leen yéen ñi seetaan seya waxtaan bi mooy bokk ci waxtaan bi dama foog ne vidéo bi mun naa jëriñ ñu baree baree bari li ñuy waxtaan fii am na solo lool li ñuy waxtaan fii am na solo eh yéen may leen ma waaye moo ko son hold on ne one rek ma defar fii nii may leen ma one second rek please yeah I got this yeah I thanks limon koson di gàddis yaa ngi dégg bokk ci waxtaan bi sea waxtaan bi mooy bokk ci waxtaan bi ñun wax diggaane yàlla doo ñëw fii nii ñu lay amin mooy loolu King Joobis na nga def King Joobis nañ sea rek ñuy déglu waxtaan bi ndax waxtaan bi man xam naa ne ku ko déglu it it it's real it's not fake ki koy wax feegut fi mu jógee féegut fu may dem dafay def loo xamante ni dina njëriñ askan gi ci biir réew mi ñoom dañ dee déglu programme bi bu leen sax dañ dee read plateforme bi government workers yi ñu ci gën a bari plateforme bi fokk ñu ñëw yurndu ko ku ma bind sa tur doo nelaw am adama na nga dem uti séddalekat amuloo ko fekkee ne foog nga ne am nga ko report yi laa jox yëpp rong ñu giri di ñu ñàkk yërmande leen ñu ñàkk yërmande leen ñu giri leen ñu la toppee laa xam ne ñu giri leen ñu ñàkk yërmande leen ndoomte mu ci yow sax nekkut si ñoom ndik liñ lay gëmloo ak li ñuy def si biti nekkut benn man xam naa leen ban fa sa nit leen liñ lay gëmloo ak lu ñoo def si biti nekkut benn baroo ñu giri leen ñii ñu ñàkk yërmande leen gis nga soo la yàlla xiiree tey ba nga dem ci National Assembly bi nga create a budget ñi paas ko pour nga help the victims na nga xam ne loolu it's just gonna go forever it's gonna go no like in vain ne day naa seeni di nga ko gis ak bët they never get your help because mbi dafa mel ni dañ am ñoo xamante ni dañ dee ñëw di block mbir gi te ñooñu lañ óolu maa si alkaali konte yi ñu ne duut saanoo something I don't know this is very sad though Minister of Basic Education foog naa lañ ko wax is it low basic I think you should to Barrow or to the minister or oh, sorry to him though directly nga chat wu sit with Barrow nga ne ko well Mr. President am gëm naa ne well li Jobis yi sanitation is true well yeah it's true though xam naa doo ko ko wax but it is very true that public school toilets or uh, school facilities is poor in public schools and then ñun léegi right now suñ kids yi they are very unfortunate yéen there was a time sa minister yëpp they went to public school seen doom yëpp they went to private school just look at that sa minister yëpp they went to public school because Saadara was ready Saadara provided us good teachers highly qualified teachers good education but unfortunately your time ñoom ñu ne we don't see good teachers here no good sanitation nothing therefore we're gonna send them to private school ngeen bàyyi di layman the poor man the farmers ñoom ñi seen seen doomi ci school yoo xamante ne amuñ benn quality those days Hermitage High School was one of the best school dangaa gis doomi minister ñëw ci biir Hermitage High di fa jànga Gambia High waxuñ ko Nusrat waxuñ ko Saint Augustine waxuñ ko Saint Joseph waxuñ ko you name them waaye tey schools yooyu noonu ñoo ginaa lompo ñoo ginaa low class tey ci biir dëkk gi lu ko koos yëpp mooy négligence bi nga xamante ne sa gars yi su éducation am nañ ko ci mbiri jàng bi foofu leen ñoom ñëpp ministre yooyu yëpp wóor la ak yow ci sa boppa seen doom yëpp yeneen leen yóbbu private school teg leen fa xamuñ problème yi kama bi si dëkk bi xamuñ problème yi transportation bi ci dëkk bi te nag ñu po ñooñu leen ñoo dajale seen yu ndaw yu ndaw yooyu form government ñoom ñooy power bi tey ñooñu nga ñëw di leen di ricaaw ci seen dëkk yi di leen di neexal te naan leen baro wax leen baro dorong baro dorong waaye nag su baro paree moo ne ñu ni dorong dorong ku ci jël rek na dorong dorong yow kenn Afrika kañ ngeen naa dem si kanam ma laaj leen correction boobu leen kañ ngi naa dem si kanam si baati drong boobu leen buy firi rekk rekk man rekk moom la nekk ci seen xol yi man rekk a koy lekk man rekk maa koy njëriñoo man rekk may dawal moto bi man rekk may dëkk ci kër bi leen ni le man rekk maa fi sañ a dugg ci néeg bu am air condition waaye bés dina ñëw nga ne man rek may dugg si bàmmeel bi lay neen ankañ ankañ te kenn du ci mun dara na ko yàlla yëram fay biram barki démboo njaay laa fi nekkoon ak téléphone ak moom di waxtaan ma jékki-jékki ba mu yàgg fi ma toog ñu ne ma alaaji Moustapha Faye dee na joobis bëccëg boobu noonu am lu ma yëg lool gis ci suma bopp trop ay toog ci suma lal bi ba mu ma ni lal bi kowe na jóob ma tëdd ci suuf ma ta ma taal air condition bi ba mu sedda ma fay ko mer rek fay ko néeg bi ñaqatooy xëpp ma taseeg néeg bi mu ñaqatooy xëpp guddi googu ma toog ba mu yàgg lampa bi leer ma fay lampa bi ak ñaxaay bi tëjaat bunta bi ma ma góor gi waxoon benn bis bi ma ko ne néeg bi lëndëm na mu ne ma lum lëndëm lëndëm bàmmeel moo ko ginaa a lii la ma tont mu ne ma jóob lum lëndem lëndem bàmmee la ko ginnaa lëndem kon donc su fekkee na ñu ngi si àdduna bu gaaw gi leen leen di dimbale askan mu métti mu metti lool jëluloo dara sa interest ŋaang rek ŋaang ba kañ ŋaang ba kañ man drong man drong man rek baat boobu rek ngeen di dundee mooy solagon bi man drong man rek ba kañ mboolam góor mboolam jigéen waxtaane activiste du mun a neex ndik ñun dafa am loo xamante ni dañ ko jël maanaam weddi li loo ko suñ boppa na bokk ci ñun ndoom te sax Amérique gii lañ nekka su ma koy ñu naa ma King Joe bis ñëwal Gambia te man su ma ne communication yëpp Gambia la Gambia laay waxal 24/7 phone bi fas ngi message bu ne Facebook message boo xalaat yéen ñi ma faaloo boo leen amee ñoo leen di dimbale nga nekk Amérique yàlla doole la ak beneen dëkk ci Europe kool leen ma ma jox leen family number back home ngeen dimbale leen su ko defee ñoom dineen ma ko wax maa ngi am ñu ñu war a dimbale ci disaster bii lañ bokka victims lañ ñenn ñi amuñ kër amuñ luñ lekka wante nag boo leen di def goo foon mi nangeen bàyyi xel mi jamono bii bum ci munti nekk muy nit ku dee muy nit ku dunda muy lu mu ko feebar wallaahi jaarul yoon suma diggante ak yàlla jaarul yoon tey sakkaa ëllëg ndik man maay wax ak seen famille yi directly GoFundMe bu ci am problème man lañ dee call ma wax ak famille yi directly su ma paree ma wax ak yow directly wax la la la famille wax soo ko weddee ma wax la li la famille bi wax bu yàggee nga xam ne yow yaay yow yaay fen lii nekk di dunda fii si biir Amérique bañ doomi aadama boo xamante ni amuloo fenn foo war a dundoo fu ne si ñaxi doomi aadama yi la ci lu loo xamante ni du dara lu ay fen ak tappale moo tax Gambie ba leen ñi dëkka mu am problème ñu toog fii di prep problème ñu leen ci war a soxali ëllëg mel ni ñoo gën bon far ña fa nekk di ko solo ndóob <coughs> excuse me lii mooy li am baro sa sa sa néeg bi foundation la ñàkk su ma la ko waxee nga mer su ma la ne sa néeg bi foundation la ñàkk nga mer sa government dafa ñàkk foundation na ngeen ko dooree moo neex keroog bi ma defaree suma bitig ba ma toog ñetti fan mu gisuma kenn góor gi ñëw ci bitig bi mu ne ma ne kañ nga commencé fii ma ne ko góor gi maa ngi fi ñetti fan ñeneen defal ñaan mu ne ma teel na mu ne ma kon kontaan naa mu ne ma bépp commencement boo gisee ci àdduna mu métti ma ne naam papa mu ne ma kontaanal ndoog am na njëriñ waaye sa government day ñëw ak ndiiraan bu rëy ak pati mu rëyee rëyee rëyee waaw pati mu rëyee rëyee rëy ngeen ñëwee waaw waaw du leen neex anyway du leen neex pati mu rëy ngeen ñëwee ak mbex di mbamba di def lu leen neex tey nag gis ngeen lu leen neexul man ma foogee ne su fekkee ni suur nga nga def ko yëfi bukki xalaatal ne dangay war a xiif ndóog waaye déedéet ñi ngay tukki am na ñoo xamante ne sax Mrs Padiams lañ leen daan ooyee fu leen neex ngeen dem di collecte di def lu tilim ci ay ministres Adama Barrow jamono boobu amul benn expérience ci réew mi da ngeen ko daan jël mu mel ni seeti tubaab ànd ak yéen ngeen di def lu leen neex yi nag may dégg xam ngeen seen boppa ni ngeen indee boro ci government is very wrong tey nag coono boobu noonu lañ nekk di jànkuwanteel ci àdduna bi yar ngeen ko nag mu commencé di daan hankañ gis naa keroog génn na di sànni xeer yu bari Loya Dabo Loya tamit génn di wax ay waxam seen politique waaye passé na te kaset boobu kenn mën na ko revise déedéet du ñëwaat jeex na xam nga dafa am loo xamante ne boo ko desee ci àdduna mooy ngay football laissé nga ne ok Manchester ak beneen dëkk ñu ngay play laissé Manchester and let's say ñu ne bayaan or something ñi dem ba ci last ten minutes yi dinga gis naka la play si di def di rey seen boppa loolu moo des diggante Barrow ak Dabo gën cee bari sax ci Lawyer Dabo tey Lawyer Dabo mu ngi ci final political arena am tey lu nekk dafa am pour mu forcer ko bu baax a baax a baax a baax baax baro mu ne ko man fi ma toll ni joxe nguur gi ak dee moomu ko gënal lu ci bëri nag ci naa nga xool King Jobies di gis ñu baree baree baree bare ñu ngi naan déedee du yéen du yéen du yéen du yéen over how many people over sixteen parties baro bëgg naa pour nga understand lii nang leen wan na leen ñun adduna bi Gambia dañ hire nañ ñu they have hired us to do the job that's that's number one question oh, statement they have hired us to do the job can we do the job accordingly so that Gambians can be happy enough to vote us what have we done what is our assessment lan lañ mun a teg ci table bi ne lii lañ am Adama bugg ko bañ ko Yaaya Jammeh bàyyi na fa ilaan maak aj 22 Jammeh bokk na ci lum mu commencé defar gisaguma sa aj 22 di airport gisaguma sa airport look at the National Assembly Jammeh left it there did I see something like that from you añ dem ci stadium bi Independence Stadium xale bu ma ko wax danga nga ne mun na twenty years déedéet dafa jóge training ñuy waxtaan ci téléphone am ba mu yàgg mu ne ma King Joobis waaye King Joobis building baa ngee màggee de ma ne ko waaw dëkk bi nga demoon ak fii mu ne ma is different mu ne ma fii sax am nga King Joobis lu ma si gën a ma ne ko naa mu ne ma toilette si mu ne ma is very undecent <laughs> ma ne ko well am naa the same complaint at the airport ma ne nga dem Bill stadium métti na trop bu mel noonu du caaxaan wante war ngaay def loo xamante ni bu ëllëgee ñu ne nguuri Adama Baro ñoo ko fi def loolu nag li ko toggoon li ko doon togg ndugg loolu leen amoon na de waaye dañ ko fooma jaral leen ñi indi tegal ñi maafe bisaab dem doxi seen soxla te naan bàyyi leen leen ñi lekk ndig ñoom dañ socc lii ngeen ñi def stadium bi ndég yàlla traité waa disaster boobu am démba bu ko nuru mun na faa am te ñaanuma ko ndég is old munu maa wax ne old na maybe the structure is good enough but it's not an American built place a Chinese built most of the Chinese seen place yi America dañ leen di ragal di leen di jox contrat gi building mun nañ leen a jox lu nekk waay bu building jote di leen di jël seen ingénieur yi nekk na sori seen design yi lay architecture si waaye not the structural engineers yi no because xam nañ ne seen liggéey yee mooy loolu daal waxuma ne building bi ba léegi is not strong enough to carry the capacity but then I would prefer ngeen def at least some check up less an engineer come ngeen wax ko exactly ngeen jox ko the documents is there moom dina def revision mu wax leen at least to change the capacity because nu ma gisee xale yi di fa feesee ak building bi nu mel man léegi-léegi suma yaram daf dee daw biñ fa jógee xale yi yóbbuwaan ma ci school si dem nañ ba nga xamante ni ñi ngi xeeb sax far di University of the Gambia because of li gaay mujjee gis ci public schools yi yaa ngi def school basse waaye soo ma laajee tey school boobu leen fan la moo mujj ñan ñoo faa jàngale lan la ñuy jàngale ñan ñoo faa dem di jàng du nekk sa doom du nekk doomi ministre di doomi na non stakeholder du seen doom yi because ñoom ñëpp fu mu nekk nii gisuñ dara ludut fi nga yóbbu sa doom bi Amerika ñu yóbbu fa seen doom ya gis nga gars yi naka lañ mun a toppandooree jiw bis ñoom ñëpp ñoom ñu ne kër bi nga tabax manque monkunda bu ko gën a rafet la tabax seen kër ak feneen ñoom ñëpp ñu ne daneen dawal moto bu rafet ngir bu mel ni bi ngay dawal ñoom ñëpp ñu ne daneen nekk si jaamata am na ñoo xamante ni ñu ngi fii Amérique di fay seen mogéet mogéet yaa ngi digga ba pare di liggéey ak yow xam nga loolu it does not make sense moo lay wane ne intérêt si dëkk bi amut fa intérêt seen boppa ñoo am maa ñu mel ni Ahmed Gite Ahmed Gite man giseewu ma ko ku dul koo xamante ni foog naa ne there is something wrong with him I'm sorry to say that ndik Ahmed Gite moom laa àndal fii street bi soriwut one one landa la one ci koñ bi nii ak seven Ahmed Gite ci noppaa ma ne ko Ahmed Gite may ma ci mu ne ma joobis Yaya Jammeh definitely we were very close waaye gannaaw passé na passé na ma ne ko tey kan nga dese mu ne ma tey maa ngi ànd ak Daabo ak Baro mu ne ko waa may ma ci mu ne ma Daabo mu tagg Daabo wax ci lu bari ci moom wax ci lu bari ci Adama bi mu demee bi nga gisee ne Daabo pare na ci moom Daabo pare na ak Adama mu jam fa lim jam fay Yaya Jammeh mu defaat ko Daabo ànd ak ak Baro tey tey bu daabo jëloon dëkk bi suma diggante ak yàlla di nga gis Ahmed Giteye mu yuutoon façon yuutoon boo xamante ne yéen di ngeen foog ne kii du nit man de xaw ma ban politique la Ahmed Giteye fan la jógee si àdduna ndax am de am na ku ñëwoon ba si man na ma kii du Gambien joobis bul wees sa time ma ne ko waaw ameewu dee yëfi gàmbien moom ni gisuma ko ci moom this is exactly what happened ay moromam nag ñëw bari ci sa nguur sa nguur dañ bari ay gidi li ñuy ooyee giidi ak ak tan tan bu ma su ma ko waxee waxuma sax tan mi nga foog déedéet yooyu ciif yi alkaali alkaali yu njëkkee ñoo ko daan am ndax jamono boobu mag ñi dañ fonkoon buur yaa ca taami Musaa ñu leen daan ooyee ay tan ñu leen laan solal yu mel yooyu leen ñu laan leen doxal i saabis yooyu la sa nguur bari ñu ne yereŋ nawet baa ngi nii ma foogoo ne ñëpp dinañ tasaare bay dem am seen naakoo ki gaadin gisuma ci loolu dara gisuma ci bunta bi ngay waxtaanee mbiri mbay dara déedéet yéen ñëpp yéen a ngi ci voter registration ak defante gi ci biir réew mi te naan yéen de you want Gambia forward Gambia dem sa kanam déedéet Gambia du dem sa kanam Adama jamono bi may waxaa yow réew mi seer na dunda bi seer na am xam naa ne affaire yi disaster bi du yow te kenn du la toog di la ko blémer ndik lu war a mun a am la daf dee am si àdduna bi am na fii sax barki démb boo njaay wante am na si ayland bi fii nii dëkkayum hit am na fii nii Amérique sax booli Florida often daf dee am ñu dëkka Florida ak dëkka yooyu ba fii nii Atlanta ñoom xam nañ affaire googu leen affaire yi tornado affaire yi hurricane yu mel noonu nag bu laalee Gambie dina métti bokk na ci réew yu ko war a mun a am ndax Gambie soo leen ko bàyyi da ngeen xam ne ndox moo ko si jabboor bu muntu di nekka dëkki ndox la dëkk bu tooy la dëkk bu naat la yu mel noonu du ñàkka Ah, waaye ba pare nag nit yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi nañ de am yéene wante bu rafet seen biir ah, doomu aadama yi jamono bi jëlu leen dara lu dul alal jiital ko li ñu waxoon la sa démba nag dañ leen moo ne mujjig jamono bu ñëwee ñu waaye suñu gën a smart ñooy jël alal dëdd ko waaye du ci bari nag ndax ñëpp alal lañ gis waaye di nga gis baadoolo boo xamante ne di dema mel nii nu mu waru doon a mel foogut ko woon waaye duñ leen ci bàyyi ndax seen fan yi duñ gudda kon donc loolu jar na bàyyi xel añ leen bàyyi askan bi xel te bàyyi leen greediness bi ngeen nekkee ci biir réew mi na ngeen ko wàññandeku na ngeen dimbale woy ñàkka yi yaa am joxe ba jeexal moo gën sax ngay toog di ko xeeñ koo xamante ne dañ na la demal nga jox ko te lu mel noonu gis naa ko ci nguuri Adama Baro surtout ñi nga xamante ñu ngi NPP Baro na ngeen ma baalal nii laa ko mun a waxee ndik nii lam mun a demee ngeen understand na ngeen bàyyi xel ne réew mi ñëw moom alal bi Adama amul dara moto yooyu tractito yooyu ak yépp réew mi ñoo ko moom ci turam turi réew mila la Fatoumata Baro lu muntu sign ci biti ak nu muntu mel ci turi réew mi la ci askan bi la moom it na understand loolu leen waaye bu kenn fëgg dënnaam naan suma yaay suma sëriñ ba ak man may lan déedéet dara bu du dara doomi aadama boo xamante ne nga rek doole nañ la ci biir doomi aadama yi ci ñoom yàlla si mbooloom yàlla wante si kanami jóobis duula dara te munatulaay nekka dara tey te doo nekka dara ëllëg pour ma wax la loolu leen nga understand doog lii bëgg naa pour nga understand ko yow ak sa nguur mboolam góor mboolam jigéen ñi ngee ñaanal famille booy dem yooyu leen ci bi nga xamee ni ngelaw bu rëy boobu dugg na ci réew mi dafa yàqte gu rëy jamono yii maa ngi am complaints yu bari ci diggante Serekunda ak Birikama ñu ne ma King Joobis ñetti fan yi amuñ fi ndox maa ko wax amuñ fi koren ñëw na dem na ndox moom amuñ kofi mooy area boobu ngay dégg mooy boori bourse bi yundum all yundum jëm ba boori bu sambala ca kanam am naa complain bi ni a boor yi nga xamante ne am na ci digg gi fële Serekunda di same complain kon dafa mel ni su fekkee ne res rescue nañ mais bi restore nañ the service loolu dafa nekk ay certain area indi the Kombo South Kombo ay na maybe di di di di north I guess but not really so this is the problem soo ma ñëwee fii naan ma ne everything is okay it's not okay soo ñëwee tamit naan ma ne waaw because of the disaster we cannot blame NAWED I have been blaming NAWED you have been blaming them NAWED have never been a good institution in the Gambia we ñun Gambia nii lañ mos di dëkkee ak ñoom Coreen dem na Coreen ñëw na Coreen dem na Coreen ñëw na that's it forever xëy na one day dina ñu may some other way to get it fixed waaye until a institution eh, eh, bu Gambia mus di am si dëkk bi foofu leen amul ñu benn njariñ seen affaire yi mos du normal xaw ma nag si ñoom la xaw ma it's possible na tamit amuñ facilité suñ nit mun naa am tamit liggéey bi amut amin nuñ ko yaaya jàmmi dana daan daan jël tëj leen mbir mi réglé boro nag mënul loolu jàmmi moom daf daan ñëw ba ci ñoom mu jàppaleen dem yóbbu tëj ndég moom xam nga ay mbiram moom du ko daan yéexee waaye xëy moom mooy loolu nag ndax aadama gars yi moom dañ koy maami yaay ñii di ko bàjjen yaay doo dee xam loolu moom mu ci biir moom pour ngeen understand waaye anyway um, yéen yi nga xamante ni you gonna help yu wanna create and uh, let's say a GoFundMe um, definitely um, dinaa monitor mi fekkee am na ndika bu leen foog ne ñoo leen óolu óolu naa leen dama ci am problème ba soona man de dama bëgg a daal balaa ngaa jooy xaalis sax ci GoFundMe koolal King Jobis ma jox la turi family Gambia I got lot names te I got it in different names in different divisions different regions maa fa am ñoo xamante ne Pël leen ñii Joolaa leen ñii Soose leen ñii ay Saraxule leen ñii ay Mankañ leen ñii Olof leen ñii Poo nañ ñii Sonna nañ King Jobis amul xaajan seen man bu compté bi noonu one two three suma yaay di four mooy number four du mun a nekk number one man Jobis loolu laa xam loolu la ma américain yi jàngal man am na dat du ma nekk koo xamante ne damaa how would I call it damaa nekk koo xamante ne damaay gënalante I don't do that nit ku bon moo koy def nit ku greedy moo koy def nit koo xamante ne óorun moo koy def koo xamante ne mutu njiit moo koy def mooy ngay toog am segregation kii a war am kii la war a am kii laa war a bugga kii laa war a lii laa war a def lii la fii laa ko war a defee naw naw doo defee noonu danga ngaa taana nit ki nga xamante ne ñu ngi soona nga dimbale leen ak kodinto niñ la approché nga jël line boobu noonu bul ko skip mu nekkul ne nit mun na laa bribe waaye yéen dañ leen a jox leen yóbbul leen vulnérable si ngeen jël ko yóbbul ko ñoo xamante ni sax seen sëriñ la nekk seen sëriñ waaw mooy seen ñaareeli yàlla yi ngeen yóbbu jox leen ngeen yóbbu ci seen ñaareeli yàlla yi because Gambia bari na ñu am ñaari yàlla anyway ndax yàlla bi nga xam ne moo la bind mooy mujj dogal ci yow yàlla bu ne mooy bind mooy mujj confirm ci yow yéen a ngi am yàlla boo xamante ni su ne leen ni barki démba joobis moo loon la bëgg a lekka nga gom loolu leen oytul joobis nga oytu ko sa kër gi ko xees ki nga daw ko far yàlla boobu noonu nag nga yóbbul ko aleli vulnérable si moo la ko gënal ret nag tukki mi ak dem màkka mi paas bi am ngeen foo leen ko def ci réew mi balaa ngeen di tukki di dem ci araab yi ngeen kool ma réew mi ren soxla nañ xaalis balaa ngay dem di omra 75000 booy omra def ko ci réew mi na ko def maalo ngir yàlla ñaan naa leen balaa ngeen di dugg avion di dem man jobis ma ne am na fum mu ci réew mi dégg ngeen loolu su fekkee ne nga ne yàlla daf ci duma nit garaaw man nañ ma see duma bàyyi leen ma coono bi is not a big deal waaye bu leen ma wan ne ma am ngeen xaalis dem màkka rek naan foon naa lii foon naa nonsense boo xamante ni yow óor na la ne am na fu mu te definitely loolu li la ko tax a def mooy li doomi aadama yi gis lu doomi aadama yi prise kon na nga jël xaalis boobu émile ko ci réew mi làmba maa ngi laay Gambia am nañ soxla gis ngeen problème biñ am si dëkk gi fu mu nekk nii nit yaa ngi nii ñu bari amuñ fuñ dëkka nit yaa ngi nii ñu bari ñàkkaneen seen kër mu jaral la nga jël ay aleel sef ko ba fees nga yóbbu ko ne danga ko yóbbul ñoo xamante ne fañ ko yóbbu di pati Gambia diñ ko gis tey sakka ëllëg loolu man ànduma ci tey saka ëllëg ñun am nañ problème bu day ni ñu toog ci réew mi jël li nga xamante ne yàlla dina ko tegal boppam problème bi bi may am Gambia benn màkka yëgut ko ba ngelaw lay jar Gambia benn dëkk yëgut ko te tey suñ leen ko àggalee tamit daf leen di seet lu leen di neex ñi def ko ci balaa ñi leen di jëlal di leen di yóbbul muy kos ay passi avion nangeen ko def ci réew mi ngir yàlla yéen ñi nga xamante ne yéen a am that preparation pour def ko ci ficco bi pour ngeen understand loolu leen mboolam góor mboolam jigéen am definitely xaw ma sabantaay moo jot ni waaye foog naa maa ngi yàgg ci plateforme bi yeah definitely ma ne ma ñëw rek di sa burning issues yoo xamante ni bëggoon naa ko adresse am na Adama Barrow xam ne dara dajale xaalis gi yomba na waaye xaalis bi pour mu dem fa mu ko foogee moo moo yombut ndig Barrow séddale katami mënuñoo séddale affaire bi it's not about Barrow's NPP bokk ma ci NPP duñ la jox loolu méegut benn sens Barrow loolu nag di lasting looy toog di xalaat ci dëkk gi NPP entity yi boppam la UDP entity boppam la Adama president nga president nag dafa ëmba lu bëree bëri yow yu are responsible for everything tey lépp loo xamante ni am na ci réew mi lu dem ci kaw ak lu dem ci suuf yépp sa tur lañ faa génne kon doog ñu laay séddalee nañ la emeleel si dëkk bi bul seet ku ne la jërëjëf bul seet ku ne la nafin seetal li nga xamante ne rek moo tax dëkk bi jiital la ñu bari ci dëkk bi nag nawloo wuñ sa toogaay doog wante ñu ci bari ci ñoom xëy na di dineen ko nawloo ngir seen interest ñenn ñi xëy na gis nañ ne it yaa ngee def dara ñëpp ñoo muntu ànd ci gis-gis bi man li ma gis ne am na mooy ñu la wër moom ñoom laa ñeme ñut te suma noxo noxo mooy lii eñ su ma eñi yaram ñeme ñut leen ñeme leen maa ko xamal suma boppa yaa ngi maa jëli yéen ñi nga xamante ne again ma répéter balaa maa daaneel yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi war a jàppale bu leen ko def ci GoFundMe mi jafe na ngeen am ci ku leer ku óor amut ci soo leen soxlaa fu namba Banjul kool leen ma ma jox leen kër yi ma jox leen tur ngeen dimbale leen ngir yàlla ni du loo fa kamera ni fa nafin su fekkee yàlla mooy tax jamono bi lépp lu caméra bokk bokk leen màkka boo leen fa demee caméra ngeen di àndal lépp loo leen di def caméra ngeen di àndal gof mel ni caméra moo fi am kon yàllaay caméra moo fi am kon te yooyu noonu man ànduma ci tey sakkaa ëllëg man joobis lu ma gëm mooy mooy loo xamante ne da ngaa dox gisal ko sa boppa boo ko teewiwut bokk la nit lépp lum yaaga muy dëgga soo problème bi ngeen am yéen Gambians na ngeen try ngeen jàppandoor bëgg a dëkka gi na ngeen eene dëkka bi jaama su ko defee ñaani mun a nangu li nekkat si yow su fekkee moom ngay ñaan su fulee si ta xool ay rekk li ñuy gis duñ mus a gis iw iw waay iw yàlla ci kaw àdduna boobu leen ndik sa eene rafetut xam naa eene bi nga amel joobis kóolut li nga eene joobis kuulut nga xëy ñaan yàlla yow bugg a am lu kuul yaa ngi nax sa boppa nga bugg a rafetal ca bàmmeel te yow sa àdduna rafetut méegut sens dangaa rafetal fii boo dee dem sa ñoom yàlla ñi rafetal affaire yi amul sax ñaan ñaan yépp am jot la danga rafetal fii soo demee si ñoom yàlla ñoom tamit ñu rafetal ndóog ñun loolu lañ xam kon bugga naa Adama Barrow xam loolu leen yàlla def jàmm si yéen yàlla def remplacement bu remplacement boo xamante ni bu gaaw la moo nekka mu nekk ay great replacement ci wàlli kër ci wàlli bi ay mais bi alal yoo xamante ne jot nañ see yaaxu ndég jël na lum indi amul loo xamante ne du ndox ak suuf moo ko fa indi amut fa lépp lam fa def suuf bi moo ko moom ndox mi moo ko moom ngelawam bu rëy boobu la jël rek jox ko muy xalaat boo xamante ni ñor na ci tubaab yi ñi see defar machine yoo xamante ne ñuy naaw machine yi gas machine yi lift ngelaw boobu mooy jax géej ngelaw boobu mooy bël géej ngelaw boobu mooy borom doole boo xamante ne bu jógee kenn mënu koo téye sant yàlla bi mu bari bi mu amee Japan Fukushima foofu noonu deka baa suulu ci ay ndox te bari na ci àdduna bi yu mel noonu ngay am ndox mu ngi koy jiya dara deful ko lu dul mooy ngelaw mu tukkee ci borom bi yéen doomu aadama yi nag gisu leen dara tey li ngeen gis tey kay mooy naka ngeen naxantee naka ngeen mën a jëlee la doomi alali doomi aadama rek di lekka yéen a nekk yàkka yërmande yéen a ñàkk xalaat yéen ñàkk xam tey fule naa mujj bu làmp bi leeree dina fay bu ngelaw bi bakken bi lum neex neex dina toog benn ngelaw dootul dugaati yépp selaw ci yow keroog nag rëccute rek moo fay des te nag jeex na dootut am njëkka balaa bés boobu nag kondoog na ngeen get ready for yourself ngeen try ngeen jéem a trappi seen mind prepare your aduna King Jobis is not your problem you don't like King Jobis for a good reason man ne naa leen leen ne suma maam mu ne naa fiq duma bugga waaw ma xamal ko suma boppandoog loolu bu leen neexee bu leen xaree maa ko wax naa fekk munta bëgg jóbis ndax jóbis xam na boppaam xam naa ban façon ngi nit laa waaw su ma tasee yow nala la tëpp suma loxo soy saay-saay ma xam ko kañ lii am na kañ kon donc ah, maa ngi leen a sant di leen di gërëm for your time dinaa bàyyi vidéo bi the best you could do is share share the information amaloon ma dara bu ganaare mu àgg foo xamante ne doomu aadama yi seetaan ko ne lii man maa ko wax te ragaluma ko ndax man mënumaay wax lu ma ragal ndik su ma ne la benn suñ tasee boo ma wax laajee ma wax ñaar loo may traité mooy dineen xeex dinaa la rey te defe na li dee moom laay fanaanoo fii di ko xëyee ndax jamono bu ne ñu ngi maa ne sa xarit dee na ki njóobi sa di dee na te ma bokk ci rangi kon li mënuma see mucca kon doo booy taseeg man bul foog ne yaa ngi taseeg ku ragal bul foog ne koo xamante ne bul tase koo xam ne faali na moto bi ngaa dawal oo kër bi nga dëkka ndax tase naa fi romb naa fi kër yoo xamante ni macha tey seen borom anañu ñoom ñëpp suuf lekk na leen te loolu mooy lu am te loolu mooy lu déggu na ngeen fàttaliku yàlla su fekkee ne mu ngi si yéen te ngeen bañ koy def imbu ba jamono bii jaamu nit yi mu leen gënal jaamu al yàlla doomu aadama yi ñëw munul dara lu dul li nga mun mooy lekk ak naan ak ndox ak jël xaalis dugal seen poche jël contrat ñu defaral leen seen kër yi loolu de lañ am waaye ba tey gomal ngeen leen loo xamante ne mu jaral leen yéen neen ngeen nekk di xeex ci mbedd gi loolu is waste of time na ngeen dem ngeen liggéey te bàyyi tappale mi Afrika na ngeen liggéey te bàyyi tappale mi surtout Gambia ak Sénégal li ngeen dese mooy tappale ndax doomi aadama yi na ngeen bàyyi loolu ngeen dem liggéey liggéey moo fi am nga liggéey sa alali boppa su ko defee keneen liggéey boppaam su yàggee économie bi am doole ñi bàyyi ñaan bi ñoo def ci biti bu yàggee nag <clears throat> dinañ bileem suñ boppa mbir bu yàggee da xool sa boppa ndik xamal sa boppa su fekkee fen ak tappale si laay dunda dinaa yaaga jàkkaarloo borom dëgga ak borom loo xamante ne lu wér la tey Amérique fii dinañ fi yaaga su balaa nga ko xam nga dem si course si fii Amérique mbaate nga dikk Amérique gis système bi naka la mel nga xool système yi Afrique naka la mel système boo xamante ne you could go back door you could change your name you could change papers overnight without the court without the judge even the executive can do some like that that is not government so this different life different living different everything moo tax doo leen bàyyi seen doom Afrique mu jànga fa fi ngeen ko indi ñi jànga fi doo leen fa bàyyi ñi dëkka fa fi ngeen indi bu leen yàlla mayee lu nekka so loolu yëpp bàyyiwu leen ko xel yéen a ngeen suul askan bi na ngeen ceeñ seen jukko yi yéen a jox seen boppa problème te bàyyi naxante bi ma bàyyi leen boobu ba beneen yoon all right peace and